auzu billahi mina seytaani rajim wa inni auzuha bika wa suriyataha mina seytaani rajim rabbi auzu bika min hamasaati sayatin auzu bika rabbi an yahdurun siraajun kafaanallahu dawaaman bi nuurihi dalaalan wa tuxyaaran wa xaaran bi millati wa ahla bihi diinan xanifan xiwaamahu maam Cheikh Ibra mooy borom sujudun wa tawaidun wa zikru li ti ñi ngi ñaan Cheikh Mouhamadul Muntaxa Mbakke yàlla na fi yàggaat lool ànd ak wér waaye di ko ñaanal bu baax jàmbaaram ji muritam bi maam Cheikh Ibrahima Fall ñu gën koo xam ci Sëriñ Amdi Fall euh, moom sëñ Mouhamadou Fall Mbenda Mbenda jaxunay ba Saala Penda mi des si ngaraaf yàlla na fi yàgg lool ànd ak wér waaye di ko ñaanal bu baax sunu jàmbaar ji Sëriñ Mortala Fall mi nga xamante ni mooy xalifab sëriñ Abdoulahi Fall Ndar yàlla na fi yàgg lool ànd ak wér ak rakkam yëpp rek waaye di ko ñaanal sunu jàmbaar ji sëriñ Cheikh Bintu Fall xalifa sëñ Mouhamadou Abdoulahi ma doon jàmbaar ja bàyyi sëriñ Cheikh eh, Bintu Fall ma doon yaakaar ja mbokki jullit yi mbokki taalibe yi yéen a ngi fii ci njaareem ci pàkk bu sel pàkk bu tedd ñëw fegook jàmbaar yi maam Cheikh Rahim Fall ju baax murit bu mag ñu koy wax eh, Baye Sidi Diop bokk ci njabootuk maam euh, Masamba Diop bokk ci mag ñi toppoon euh, maam Cheikh Ibrahima Fall ñi ngi ñaan euh, ci barkeeb maam Cheikh Ibra li ngay liggéeyal sëñ Touba ci biir réew mi ak bitim réew yàlla nga àggale lépp ci barkeeb maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridine di gërëm mbokki taalibe yi nga xamante ni ñoo ñu jàppandal ba mën a ñëw toog Euh, sunu baay bu baax bii nga xamante ni boo demee barabu maam Amadou Fall ya mi nga xamante ni doom la ci roq Roqeya Ndiaye meññ maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridine sunu jàmbaar ja mi nga xamante ni moom la sëñ Tuubaa indi woon ci làmbi lislaam ji daan noox na njëkkuma kër sëñ Bamba waaye lu fa baax man la barab boobu jëmm jii ñu toogal moo ko liggéey ci ndigalu Euh, njabootuk euh, maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridine bi bi Serigne Cheikh jëmb bàyyi ko euh, mu jébbal sëñ Mour Abdoulaye Fall Ndar santoon ko ndigal bi bi Serigne Cheikh jëmb Fall nekkee sunu borom dogal sëñ Mour Abdoulaye Fall Ndar bàyyi koo fi mu ànd ak mboolem njabootuk maam Cheikh Ibrahima Fall gépp rek dem indigéré ko ànd ak sëñ Tall Abdoulaye ak mboolem njabootuk sëñ Mour Abdoulaye Fall Ndar gépp indigéré ko foofu ca njare mbokk ñi topp ci biir ak bitim réew ñooy ñaanal Baye Sidi yàlla na borom guddal saw fan euh, Baye Sidi euh, ñi ngi lay nuyu bu baax maam Serigne Fall dañu woon fu waay fu waay yem yaa fa sa bopp man bi may nekk daara ji bu ma musaana dugg euh, Mbuur jëm Touba buñ buñ ci pen pencum ndox laay jaar waaye dama gisoon foofu ay sëni mbalit yu kawe nekkoon fa waaye bi ma gisee seetaane ci ci image yi gis nga nettuwaaye ko ba mu set def ko muy pencum ndox ti am réew yaakaar naa sama baay nee na am réew kenn du ko pàccoo dañ koy pencoo moo tax tey bi ma taxawee ci pencum ndox gis fa mbayu maraîchage sama xel dafa dem ci njabootug maam Serigne Fall démb 1917 njaareem gii maam Serigne Fall daan na fi bay mbayu maraîchage daan daan ko ànd ku ñuy wax sëñ Mba Ndiaye ak ku ñuy wax sëñ Ibra Kañ jabootam fi ak ku ñuy wax sëñ Ibra Mbëgge ak ku ñuy wax eh, ki nga xamante ni mooy sëñ Mba Ndiaye ak sëñ Ma ñooñu mbay maraîchage maam Serigne Fall. wutoon na ay eh, olande ñu ñëw fii ci njaareem formé ndaw yi njaareem loola loolu la Baye Sidi delloowaat maam Cheikh Ibra Fall daraam kon Baye Sidi alali maam Cheikh Ibra la Baye Sidi kon maam Cheikh Ibra Fall la waaye Baye Sidi eh, soldaaru eh, maam Cheikh Ibra Fall la Baye Sidi bi ñuy tàmbali liggéey bi dañuy nuyu bu baax sëriñ Khadim Ndiaye mi nga xamante ni sunu xarit la sunu rakk la ndax ñoo bokk yaay son am yàlla Ndiaye ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di ko jox wàccuwaayam Baye Sidi Euh, première question bi euh, barab bii nga xamante ni euh, moom lañu toog histoire bi ak taarix ji ndaw ñi gëstu ci taarix dem gëstu ji balay gëstuwee buñ ci jógee ñu doog a ñëw ci ci ci péncum ndox waaye bala ngay ñëw ci ñaari question yooyu dama bëgg nga dimbali ma ci njabootuk Mame Massamba Diop lan moo leen lëkkaleeg Mame Cheikh Ibrahima Fall aousu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ah, dañuy tàmbali ci baamtuwaat ñaan yi nga ñaan léegi baamtu bi mooy ne ñaanal ki nga xam ni mooy sëriñ Touba sëñ Muntaxa mu gën fee yàgg gën a wér di ñaanal sëñ Amdi Fall mu sëriñ Moodu Mbend mu gën fee yàgg gën a wér di ko ñaanal njabootug sëñ Touba gépp di ko ñaanal njabootug maam Cheikh Ibrahima gépp di ko ñaanal sunu bunt ci kër maam Cheikh Ibrahima Fall di sëñ Taala mu sëñ Ablaye Fall Ndar yàlla na fi yàgg te gën a wér di ko ñaanal ki nga xam ni moo fi xalifa ki ki ki ma ki ma ki tette ci yoonu maam Cheikh Ibrahima Fall muy sëñ Cheikh Bintu Fall mu sëñ Modou Ablaye Fall Ndar yàlla na fi yàgg gën a wér te lim yéenee liggéeyal maamam mu gën ko man gën koo tal ñun ñëpp ñu ànd koog moom ànd koog waa kër njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall gépp di ko noonu laa koy ñaanale tam na képp kuy mbokkum taalibe di ko ñaanal képp kuy jullit di ko ñaanal képp ku yéene askanu àdduna wi jàmm te di dox ci jàmm di liggéey ci jàmm loolu moom lay tàmbale bu ma bu ma bu ma jógee ci loolu daal dugg nag yaakaar naa yéen ñii ma gërëm leen ba pare nag ndax dangeen a jóge fu soritam tam bàyyi yitte yu baree bari ñëw di taataan fi lenn li ngeen fi taataan du dara lu dul li li ku nekk war a taataan mooy lu dég taalibe rek ak nu ñuy toppee maam Cheikh Ibrahima Fall nu ñuy jariñoo ci sunu yoonu wi waaw te jariñ ci sunu yoon wii mooy liggéeyal sëñ Touba rek te liggéeyal sëñ Touba niñ koy defe maam Cheikh ko jàngal ku ne waaw question bi nag mooy ne maanaam xam naa di ko baamuwaat ndax mooy mooy maanaam ah, lu waral fii ñu toog fii ñu toog lu ko waral mm-hmm. Mm-hmm. ak eh, ndox waaw ci am réew sama bàyyi dañu woon am réew kenn du ko kenn du ko eh, maanaam pàccoo dañ koy pencoo waaw waaw ndeysaan ndeysaan naa nga ñëw ci waaw ak sa diggante njabootug maam Masamba Diop du leen lëkkale. ah waaw foofa laay tàmbalee nag. Mm-hmm. njabootug maam Masamba Diop ba maam Samba Diop ndar boo ko déggee ñu di ko dàkkantele ndar. mooy ne ndar la jóge woon. Mm-hmm. ab mbawor mbawor la eh, boo ñëwoon ndar nekk ndar di liggéeye ndar. ba tàmbalee foofu ca ndar ak jaamu yàlla yàllaam ba nekkoon ci kër yi diine yi fi nekkoon ca temps yooyee waaye ba mu ba maam Cheikh ñëwee ma nga dajeeg moom ca ndar parce que da daaray Pajaas la sama maam nekkoon bokk ci ñu njëkk a topp maam Cheikh Ibrahima fa ca daaray Pajaas Pajaas yooyee ngeen doon dégg ca ndar te ñooñee doon ko liggéeyal maam Cheikh sama waajur ca foofee la nekkoon. Mm. ndey di sama waajur sama maam Samba Diop foofee la nekkoon ba fa samay magi waajur ak sama waajur ganee àdduna sama waajur ba mu fa ganee àdduna maam Cheikh Ibra Fall lañ ko tudde ci waaw mooy Baye Cheikh Ibra jóob moomee Baye Baye Fall ñëpp a ko xamoon ci loolu muy muy muy muy taalibe ah muy muy waaye muy muy maam Cheikh maam Cheikh Ibra Diop léegi maam Samba Diop ndar moomu daaray Pajaas la nekkoon sunu waajur doon ñu ci nettali xisa yu bari ndax nee na ma waajuram daan na ko wax ne ñi nga njabootu maam Cheikh Ibra Fall gi nga xam dañ leen a dugaloon école des fils de chef ca Ndar nee na maanaam daanaka añ buñ mas a am añ ca mbaarum maam Samba Diop Ndar lañ ko daa añ ndax maam Samba Diop Ndar ne daa xëy bu ubbee daara yem pajaas joojee ba pare jëlub këllam màjjaali bu màjjaalee ci këll bu mag bi cere benn bi mu màjjaal ci soow bu ko boolee am na suukar sum daan denc def ci suukar ba mu saf waajale ko waa kër maam Cheikh Ibra Fall muy ñoom sëñ Aliou Fall Mbawoor yaakaar naa sëñ Assane ak sëñ Ablaye léegi bu ñu ñëwee nee na bu masaa wàcc ba jóge ca école ba kër maam Cheikh ga dafa yaatu woon dafa xumboon te xam nga kër sëriñ yi dañuy yeex a añ ci waxit léegi tey njàng mi du nekk waxtu woow bu ñu ñëwee ca daara ja sa maam jox leen ñoom ñëpp ñu xéewlu mu ne leen dàllu leen fii bu ngeen dalloo bu waxtu dem école jotee te añ bi pareegul ngeen dem añ ngeen dem ca école ba fekk mos ngeen dara bu añ pare nag ngeen dem añaat door a dem ca école ba lii de sama waajur nett li ma ko muy diggante ba diggante bi njëkk nag boo gisee ñu tëbe foofu rek ñu nit dugg Ndar Faal da di tamit dafa am histoire xisa bu rëy bu am ci suñ diggante maam astuba bi nga xam ni mooy waajuru sama baay Cheikh Ibra Diop ak maam Fat Fall Wadd foofee dafa am xisa yoo xam ni bu bu bu dëgër ak ànd bu dëgër boo xam ni mënee ko tasaare nii ci ay ay ay ay ay waaye foofee mooy bunt bi nga xam ni moo tax ñu nit ci wet ñu jege lool waa waa waa Ndar Fall nga xam ni maam fatfal Fall Wadd mooy seen waajur loolu daal mooy maam Samba Diom daal loola tax bu ma ñëpp di wax naan eh, ah ndax danga ngaa sosoo njaareem wala kii ma ne man de wax dëgg yàlla njaareem lay ganee àdduna waaye sama waajuru góor moom ndar géej la ganee àdduna samay waajuru jigéen ganee àdduna mbawoor donc looloo tax ma dëkk mbawoor jóge Saint-Louis daanaka ci ci ci njaboot waaye nag ndigal la ñu indi fii ndax bi maam Seex sans bi maam Seex nekkee Thiès la sama maam ñëw seet si ko Thiès mu ne ko ana njaboot ga ñu ne ko mu ne leen mu ne ko ñanga ndar mu ne na njaboot gi ñëw njaboot gi jóge ndar fekki ko Thiès bi egsee Thiès ñu jote fa ndigal jëm si njaareem mu indi leen njaareem fee ñu dëkk ci kër mu dogal ñu ko yóbbu ñu fa muy xuru mbawor boo déggee ñuy wax xuru mbawor ci Mérina mooy taalibe maam Cheikh yu njëkk ya ji jóge woon mbawor foofee lañ leen daggal ca wet ga ñu ñoo maam mataar Gay Warak mooy ñi jóge Warak féete ñu noonu ak waa tey fóor ñoo mm-hmm. jege fa ak waa Madou Gay ñaay mm-hmm. ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñi ci ci ñi toppoon maam Cheikh lañ bu njëkk mu daggal leen foofu ba tey jii seeni sëta nga mm. waaw waaye tey fóor man kon ndigal a ma téye njaareem mm. bu ñu waxee lu la indi njaareem man ma ne fii dëkkuwaayu ndigal la mm. maam Cheikh Ibra Fall la ñu ko digal te maam Cheikh Ibra Fall lam doon doxal ca waxtu yooyee ndigalu sëñ Tuubaa la sëñ Touba ko indi njaareem maam Cheikh woo sunuy maam indi leen fii ñu nekk feek ndigal waajur it ne du fi jóge di dellu fenn fii ko waajuram bàyyi woon mu boote waajuram gébb faal yóbbu boote ko gébb ba Mbàkke door a gisub oto indi ko fii mu wàcc liggéey ñu denc ko bar sax noonu la sama waajur def ak sama maam ne moom it dootul jóge njaareem loolu ñu nit moo ñu téye njaareem muy ndigal loolee nga xam ni ca sëñ Touba la bàyyi ko jaar ci maam Cheikh Ibra Fall ba egsi ci ñun loolu mooy maanaam suñ diggante ak kër gi léegi buñ nee fii ñu nekk nag fii ci naar bi nga xam ne moo ko moomoon muy Riyad Yactine di doomi Ali Yactine ndax Ali Yactine moo ganalante woo moo nekkante woon ak Serigne Touba ndax eh, Riyad Yactine nee nañu bi baayam nekkee fii moom lañ indi sëñ Touba fee ci ginnaaw Sénélec waaw moom ci waxam nee na sëñ Touba egsi na ba fii waaye léppi waxam nag la léegi ci fii itam barab bii ñu toog nii jàkkaarloog bâtiment bii li tax ñu defare ko nii ci ay waxtaanam parce que looloo taxit xam nga xam nga histoire euh, li dafa doy waar dama ko enregistré mu wax ñu ne sama baay a wax lii ñu enregistré wax jooju dugal ko fii sëñ Cheikh Bintu la ko njëkk a wax mu génn wax jooju génn ma jël sama mag indi ko fii sunu xalifa di sëriñ Fallou Diop mu ñëw fii toog ñu interviewé Riyad defe naa leer wax moom li ko baayam wax waxi taarix nag wax ju bari la ndax am nañu ne moom oto bi muy wax dafa àndoon ci denc ba moom nee na baayam da ko ne ci oto oto baayam boobu lañ tegoon ku tedd ko waaye ak lum ci wan a doon moom ànd na ca wala muy kuñ ci teg moom ba oto ba ñëwee da koo denc fii ma ne nag loolee bu dee moom moomee di naaru Beyrut moo yëkkati sëñ bi ba jël oto ba denc ko fii ne waajuram ne ko woon nanga seet ki nga koy jox ki nga koy jox nanga ko seet mu seet ci waa kër sëñ Tuubaa ngir jox leen ko dogul àntuwul muy dox ba egsi ci man ma jël ko man it fas yéene yéeneem joojee ca baayam amoon baayam bañ maa gën a gore ndax dama bëgg kenn gën ma kenn gën ma gën ma bëgg Serigne Touba looloo tax noonee mu wormalee barab bii ma ñëw dolli ci worma gën koo defaraat ubbi ko bàyyil ko bunt ba nga xam ni taalibe bu mu neex mu ñëw fi julli fi ñaan fi jàng fi alxuraan jàng fi xasida ah, jaamu fi yàlla liñ fi defit du lenn ci biir lu dul alxuraan yi nga xam ni ci li sëñ Touba gën a fonk moo ndax moom jàpp nañ ne mooy sax li mu gën a fonk ak xasiday sëñ Touba loolu lañ fa def ci télé bi ngeen gis ci biir muy waxtaan woo nga xam ni naar bee ko wax ñu enregistré ko mu nekk fii ku ñëw déglul ko sa bopp bañ ne Sidi Diop a wax lii wala keneen a wax leen léegi bu ñu demee ci beneen question bi ci topp nga ne péncum ndox mm-hmm. péncum ndox loolu nga wax rek ndax péncum ndox idée boobu maanaam xalaat boobu bi ma koy am mm-hmm. dama sëñ Touba moom defal nañu pénc mhm. mooy pénc moo xam ni 1918 photo yaa ngi door a génn mhm. fa tegoon xeer wa def fa jumaa defal ñu pinc mu yaatu moo xam ni boo imaginer waxtu wam ko doon def di ca 1918 mhm. mu samp loo xam ni daanaka booba ba léegi ab bâtiment bu tol noonu bu mel noonu amul njaarim wala amul sax ci gox bi bu dul tuuba wala Masaalikul Jinaan mu defoon ko ca tax yooyu nga xam ni moom vision romboon na fu ne mu def am tam am péñ moo xam ne fa la daaray kaamil ja nekk boo xam ne jàmm juñ am fii ak bu keneen am ja eh, eh, daaray kaamil jooju ca la ñu jógee ci daaray kaamil bi ngeen gis barab ba fa nekk ba fa ñuy denc nit ñi ak lépp lool di péncum suuf ba pare ku nekk dégg na ci taarixit julli gi sëñ Tuubaa julli ci géej man ma ñëw gis barab boobu ci ginnaaw nim mel mu wóor ma ne aw yoon la woon wu sëñ Touba doon jaar di jóge ci résidence biñ ko njëkk denc fii di dem ba fexe ba am foofee nga xam ni dafa daan dox ci diggante bi ma ne feppi suuf yi tedd nañ tedd goo xam ne ak ndox mi dañ ba nga xam ne raxas na feppi suuf yooyu que dañ ko war a wormaal ñun ñi nga xam ne ñooy taalibey sëñ Touba jël barab boobu setal ko defar ko ba mu baax jox ko waa njaareem ba waa njaareem am ab plage plage boo xam ne dinañ mën a dem toog fa jàng fa xasaayit jaamu fa yàlla waxtaan ci waxtaan wu am njëriñ woo xam ne day yokk ak taalibe yokk aw askan looloo tax ñu defar barab mbarum mbaarum diisoo ndax foofu pro programme ngeen ko waaw mbaarum diisoo mooy barab ba fa njëkk sax mhm. loolu ndax dañoo bind péncum ndox muy am pénc mu tiim ndox mhm. ba pare nag bu ñu nee diisoo lañ fay def mhm. loola tax ñu bind fa mbaarum diisoo moo xam ne nit ñi dañ fa war a toog di diisoo ci xam-xam bu am njariñ te gis nga tubaab yi nga xam dañoo amuk gis biñ ma déggee ma wax leen ko mu leer ci ñoom dañoo ñëw jàppale ñu pour gis gis ngeen tey bi ngeen fa demee loolee ñuy defar mooy centre de formation bi fa njëkk di daara daara joo xam ne dañ fay jàngale xam-xam yu am njariñ looloo tax ñu ne salle multifonctionnelle du benn fonction rek ab jàngu la ab jàngu boo xam ne dañ fay jàngale mbir yu bari yu am njariñ Basiru jële ko njaareem indi ko Touba mhm. waaye ñu ngi nuyu baax sa njabootu turandoo mhm. laaj naa ko ci mag ñi ko si mel ni sëñ Mbay Ngiraan mu ne ma sëñ Sidi sëñ euh, docteur Sidi Gisee bi nga sa njabootu turandoo euh, tamit ba mu tawatee Eh, ku ne xam na ni eh, bi mu ñëwee fii njaareem mm-hmm. docteur Seydi Guissé lañ ko boole loon mm-hmm. mu koy faj suñu mm-hmm. jàmbaar ji sëñ Moussa Ka werakaanu sëñ Touba Baye Seydi ku ne xam na ni maam Cheikh Ibra ay gouverneur ay capitaine armée française daan na ñëw di vacances ci njaareem te ku ne xam ne ni tey jii ay nasaraan jóge nañ Allemagne ñëw fii ñëw fi def fi visite ñëw fii am ñu fi ñëw di fi def formation mag ñi nee nañ ma loola xar kanam maam Cheikh Ibra Fall démb moom la Baye Seydi yeesala la ñun loolu lañ gëmit ndax ñun ay Baye Fall lañ te wax dëgg yàlla suñ léppay maam Cheikh Ibra Fall mhm. dañoo jox suñu bopp maam Cheikh Ibra boo ko waxee nag nit ñi tey am nañuy tëj seen gémmiñ mhm. naan kii ndax xam nga am na ñoo xam ne ci lu dëgëral yi mhm. ah ñoo ñu boo leen waxee loolu seenu fit mën naa rëcc waaye ñun nag wax dëgg yàlla ñun moom dañoo jox suñu bopp maam Cheikh Ibrahima Fall waaw mooy sunu bunt mooy sunu lépp te bunt boobu ak yoon wi mu ñu woon xam nañ ne yoon wu jub xocc la wu lay yóbbu ca yàlla mm-hmm. ndax yoon wu lay jaarale ci sëriñ Touba sëriñ Touba jël yoon woowa jaarale ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yoon woowu ca yàlla la jëm kon buñ ko waxee kum neex sa dënn rëcc waaye ñun suñu dënn duñ ci rëcc jox nañ sunu bopp maam Cheikh Ibrahima Fall maam Cheikh Ibrahima Fall la ñuy liggéeyal waaye ku nekk xam na ne nag maam Cheikh Ibrahima Fall wanekatu yoon la mm-hmm. tax ñu nit dañuy wanew yoon mm-hmm. du rek ku ku koo bëgg a gindi ñëpp ngay gindi maam Cheikh Ibra dafa yaatu gaal la boo gisee barab bee ñu ko denc boo ko gisee ma nañ ko def mu màndargawu di nuroo gaal gaal nag lu ci dugg nga yóbbaale doon nag loolu la ñuy doxale ñun yamalewuñu suñu wane yoon rek ci ay jurbelois wala bawol bawol wala sénégalais dañuy won yoon ku yàlla bind ku ñëw fii parce que xeebuñu ci suñu bopp ndax xam nañ ki ñuy won muy Serigne Touba jaarale ko ci maam Cheikh Ibrahima Fall mën naa woon fu nekk ci àdduna loolu mooy suñ conviction mooy suñu gëm-gëm loolu tax tubaab yi di ñëw fii ñu di leen wanu yoon aussi ñëw wuti ñu ñoom aw yoon dañuy ñëw ñu wan leen yoon di leen conseiller di leen jàppale di leen gindi di leen wanu yoon naan leen nag nañu ànd ndax ñun ñëpp yàllaa ñu bind yàlla bind ku weex yàlla bind ku ñuul yàlla ku nekk lam la nekk ci yow sax ci gëm-gëm ak yeneen moo ko ci nam ñu ne nag nañ def comme nekk gaalu maam Cheikh Ibra jël ñëpp yóbbaale leen loolu tax ku fi ñëw li ma lay njëkk a wax ndax xam nga Touba boo ne xamoo Touba ma ne boo ñëwee Sénégal ba jóge fi dem te xamoo Touba mooy xamoo senegal loolu laay njëkk a def ku fi ñëw dinaa la fexe ba yóbbu la Touba bu ma la yóbboo Touba wan la la nekk Touba loolee nekk Touba nag ma ne loolu mooy li nga xam ni moom lañ gëm te loolu mooy li ñuy yéene képp ku yàlla bind ci la ñuy dox di ci xëy di ci gont di ci fanaan loolu daal mooy sunu jëf kàddu gi ngay tàggoog mbokki ak waaw ñi li tàggu bi mooy mooy nañu gëm yàlla te gëm yàlla dafa ànd ak gëm sa bopp mhm. parce que ki nga xam ne day xeeb boppam ba du yaakaar ne mën na dara bu yaakaar ne man naa wonew yoon kookee mooy ki nga xam ni moom moom moom dañ ko war a ñaanal ndax ñun li ñu am kenn amu ko te ki ko waxit kooka sax kenn amu ko muy sëñ fal sëñ Fallou ñu ne li ñu am kenn amu ko te ku am Serigne Touba am maam Cheikh Ibrahima Fall am ñu mel ne sëñ Fallou da ngaa war a wane yoon da ngaa war a gindee da ngaa war a dimbale kon may woo ñëpp ñi nga xam ne ñi ngi ci Sénégal Sénégal moom ku fi ne nee naa la gëstu jil Serigne Touba gëstu jil maam Cheikh Ibrahima Fall gëm leen parce que gëm leen dafa wóor te gëm leen teewul nga la nga nekkoon parce que kenn waxul kenn fa say maam nekkoon ak yooyu dawal jóge fa waaye loolee ñàmbaas si sëñ Tuubaa ak maam Cheikh Ibrahima Fall parce que boo gëmee loolee nga nekk sax ba mu wóor boo utul ab Baay Faal nga wala ab murit nga boo génnee ci àdduna si wala booy dox ci àdduna si waneelu yoon fu ñu la gis nanga nga wane ak taalibe ni ko sëñ Modou amint doon wax boo dee woon fenn sax ku fa romb dana néew daa war ne néew bii de ab taalibe la woon doxin woowu lañ war a doxe gën a gën a nangoo liggéey gën a jub gën a ëpp xam-xam ndax xam-xam da ngay jàng rek chaque jour deel jàng ëpp xam-xam du ak rëy da ngay ëpp loo loo loo xam ne da ngay jaaj ci wut xam-xam di wut xam-xam mais bañ a nangu nag ne duma topp kenn ku dul sëñ Touba ak maam Cheikh Ibrahima Fall du jox kenn su suma bopp ku sëñ Touba ak Ibrahima Fall parce que ñoo ñu wóor na ma ne ñu mën a gindee lañ te dinañ la teg ci yoon te du yàqal kenn njariñ la loo xam ne amul benn lool loolu daal ci laay woo képp ku nekk ci àdduna si ndax lu baax ku ko gis danga ko war a yéene ñëpp te yéene naa ko ñëpp. jërëjëf. Eh, xam naa kon dañuy yëkkati jotaay bi rek. ba eh, beneen yoon. di ñaan yàlla na sunu borom. Eh, guddal fa yi entreprise bi tam sunu borom yokk ko. waaye di gërëm bu baax sunu caméraman yi fi teew. ah akasa akasa mm-hmm. akasa akasa akasa yéen moom sant naa leen gërëm naa leen. gis naa seenub liggéey bi ngeen di liggéeyal maam Cheikh Ibrahima di ko liggéeyal sëñ Touba parce que liggéey bi moom ku nekk ku nekk da nga cee am waa ñun ñu ngi ci entreprise yi yéen yéen a ngi ci caméra yi ak microphone yi ak leneen nag ku nekk dox ci ab baaram vers l'excellence ku ci nekk na excellent ci waaram te te te te jombul kenn nag ku ci nekk man nga egg foo xam ne danga naan lu ma indi fi ndax sëñ Touba moom ku ko topp di ko liggéeyal da nga koy liggéeyal ker mu fay yàlla na ñu fay guddi googu te guddi googu ànd ak jàmm barke sëñ Touba barke maam Cheikh Ibrahima. waaw jërë ngeen jëf mbokk yi topp ci biir réew mi ak bitim réew bi ñu xëyee ba tey demoon nañ ñëw fii ci njaareem eh, dem pencum ndox def fa bu am solo jóge fa ñëwaat ci barab bii nga xamante ni bokk na ci pàkku suuf yi nga xamante ni boo fi toogee da ngay jàkkaarloog sunu borom te sëñ Sidi sama góor la woon bu baax ak maam ju baax képp koo gis moo koy xeeb da ko amul maam Samba Diop sama am amoon na ay joloore dama koy wax lu bay waaye dama bëgg say joloore bopp moo waral nga def lii sëñ Mor Tall dañu woon bàyyil jaloorey gaa yu baax yii ngay war ak a tiitaroo bu la neexoon ni maam Samba mooy sama maam am na cër ci Cheikh Ibra daal ni jalooro joo deful ak ñam woo musulayam te xet gi di la gimmi ngay mel ni ku suur daal ni musal sa ginaaru su bopp soo mus moo gën a wóor nag yow musul tanaaw noo du a ko suur ñooñaa di ñii kookaa di kii foofaa di fi dëgg waaye murit bul séenut leneen fenet waaye nag sëñ Mourab Laye mat naa sant waaye sëñ Mourab Laye mat naa ñaanal na saayir sa mel baatin ba mel moo am doole ma fus laa gàggandikoo waa ak a bëri woon doole bi ma duggee fii gis fi foto euh, bi nga xamante ni ànd nga ko euh, sunu jàmbaar ja naaru maam faatu kobar muy euh, sëñ Mourou laay Fall Ndar borom Ndar Fall ñi ngi ñaan yàlla na sunu borom yeesal ay yërmandeem di ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha bis bii nga xamante ni organisé organisé na ko démb mbooleem njabootug maam Cheikh Rayam Fall la ko dalee kër sëñ Fallu Fall mii taaw ba ci kër Ngunda Saabi ba ci kër son Umi Fall ñëpp teew fa benn baat mooy laa ilaha illallah ñi ngi ñaan ci barke bis boobu entreprise bi yàlla na sunu borom yokk ko ci barke bis bi li ngay liggéeyal maam Cheikh Ibrahima ci biir réew mi ak bitim réew ku dem njëre gis liggéey bu tedd booba kon ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di gërëm njaareem eh, TV di gërëm bu baax eh, sañ Mbay mi nga xamante ni 24 actu ñu ngi koy gërëm bu baax SN Pro image yi war na faa jàll Rapide Info war na faa jàll Mbour Info war na faa jàll Euh, Mbour TV war na faa jàll muy organe yoo xamante ni ñun ñoo ànd di liggéeyal euh, Mame Cheikh Ibrahima boole suñu doole boole suñu lépp fu jàmbari Mame Cheikh Ibrahima Fall nekk di liggéeyal Mame Cheikh Ibra ñu dem wane ko ndaw ñi gësu ji dem gëstu ji ba lay gëstoo wees waaye day gërëm suñu jëwriñ ji ñu jàkkaarool Baye Fall ñu ngi lay siyaar waaye di gërëm suñu xarit suñu rak Serigne Khadim Ndiaye Baye faal ñu ngi koy gërëm bu baax allahuma salli wa sallim wa barik Baye Siri da ngay ñaan ñu yëkkati jotaay ba beneen incha allah rabbi jërë